na wattandiku na wattandiku képp koo xam ne yaa ngi juuyoo ak ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nanga nga wattandiku ne fitna wala musiba wala mbugal mu metti mi ngi la jublu si mu ngi daan ci sa kaw fitna joo xam ne fitna yi àdduna lay doon ak joj àllaaxira musiba moo xam ne musiba mu àdduna ak àllaaxira lay doon mbugal moo xam ne mbugalum àdduna lay doon ak àllaaxira moo tax alqurtubi rahimahullahu mu ne ci aaya bii